dul bind naan l' ancien pensionnaire de Rebeuss voleur de riz et de mil dama lay génne ci groupe bi duma ci waxaale parce que est incorrect kooku démb ak barki démba xama woon loolu ci moom bu la defoon deuxième place nga ne wu waa ji mooy waaja def la foofu nga dugal di saaga ma génne ko ci groupe bi te ku fi saagawaat ma génne ko ci groupe bi amul luñ ciy xaar donc groupe bi c'est un groupe ouvert débat yaa ngi ci yum gis na ku nekk ngi wax loo xalaat avec des moo yenn saay sax truc mais ay xaste ak ay saaga xaju fa groupe bi man maa ko créé ku ci wax lu dul noonu dama ko ciy génne et je l'assume alors donc ñu bëgg a wax tous les ñu bëgg a wax tous les leaders tous les leaders nañu delloo ci seen xel askan wi dafa am yaakaar ci yeewi askan wi te yeewi askan wi nag dara mënu koo tere continuer nekk li mu nekk bu soobee yàlla dara